bokk yi ñu ñëpp xam nañ ne senegaal yàgg naa tànqam lu lool ay doomam ci ay jamono bu yàgg ku mësaan ndox ci àll bi ba yàgg nga seen drapeau bi muy raf-raf ca kaw dangay jàpp ne gis nga sa baay walla sa yaay gannaaw bootu rànkee lool waaye boo fa demee ba gis ña fa nekk yaakaar ju tas képp nga fay jële ndax ñaari baat yi lañ doon wax ak a waxaat lu ngeen fii def ñibbi leen ñaareel ba réewum njàmbur ngeen nekk ñaari baat yooyu dong lañ doon wax ak a waxaat ba daanaka drapeau bi séen ko ak bañ koo séen nga yemale xam nga ne boo fa wutee itam yaakaar ju tas képp nga fay jële kon Sénégal yàgg naa tànqam lu ay doom te moo ne am na ci àdduna bi réew yoo xam ne seen benn doom seen jenn doom ji nekk bitim réew ñu sonal ko fa jaral na leen wëq armée bi lëm dem jëli ko waaye naka jëkk nag Sénégal yàgg naa tanq tànqamlu ay doomam ñu nekkoon bitim réew moom ci ay jamono xawma ku ñu fa nekkaloon mën naa am Sénégal lañu fa nekkaloon waaye daawuñu fa nekkal sénégalais yi tax nañ ñu bari lang nañ fa bëggatuñoo ñibbisi ndax njaboot a tax kon wàllu réew mu ngi noonu ki ci topp mooy ki jaboote am na ci loo xam ne wàllu ki jaboote la ndax moom itam moo def ci xelum doomam jim jur wala jim njaboote ak ñi dëkk ak moom xool leen doomi diw ji ni mel muy baat bi ñuy wax tekki baat bi ñuy wax tekki am na ci réew mi jamono jamono joo xam ne kuy bëgg soxna ci ay wet ci réew mi dañuy laaj ba xam fu muy dem bu ñu demut fenn ñu ne daa mel na jigéen ji da ay wax da cay nekk suñ ne ma ngay dem booba këyit yu ñuy mayee bitim réew tàmbaliwut a am ñu ne kooko dem am na jom mel na ni ku ko jox dana yor ba mu yàgg ñuy laaj ba xam am na këyitam deet xam nañ ne ko amul këyit bu ñëwee du bu ñëwee du delluwaat suñ ne am na këyit ñu ne kooko de am na jom su amagul kayit ñu ne ah ku amagul këyit nag da moom kii sax daa mel ne dama ko fee bàyyiloon kenn ba yàgg ñuy laaj ba xam këyit bu mu am déterminé la wala indéterminé këyit wuy jeex wala wudul jeex ndax ñi ngay xalaat bu jeexee bu ñu koy yeesalaat danañ ko nanguwaat wala déet ñu sag koo may ku ko gis nag sa bët fattu nga ne man dem rek ndax diwa ngi nit dem te kay dem soo ko laajee bu la waxee la fa nekk nga ne su doon loola du demaat te laa yunabbi'uka mislu xabiir mbir mën nga koo tiim laal ko xam ne dafa tàng waaye mënoo caa yem xam tàngooram kese ak ka nga xam ne tibb na ko ba def ko ci gémmiñam ka ko tibb def ci gémmiñam yàbb it munta bokk mukk ak ki nga xam ne daf koo sex wanaasu ko lu tax muy demaat lu tax muy demaat ñiy dem ak demaat ñu si bari am na lu leen fa tënk loo xam ne mënatuñoo mënaguñoo toog léegi bokk loolu lépp it taxawug réew moo may wax da ci doon nekk.